ñun danoo nekk vraiment opérateur économique nekk responsable école privée di nekk aussi président CAPEP boo xam ne bii mooy cadre des acteurs et partenaires de l'enseignement privé di itam responsable boo xam ne bii au niveau des consommateurs la may président bi tey nag li ñuy wax fi mu toll nii dañuy masawu ñi nga xam ni ñoo am ay problème ci vraiment mbas mi di ñaan yàlla mu jóge fi lool ak na mu gën a gaawee di sant ñëpp di sant infirmier yi di sant képp koo xam ne ki population bu Mbàkke nga di sant ñi nga xam ñooy def ay contribution di remercier le président la république ci initiative yi mu jël muy loo xam ne lu rafet la parce que d'abord problème bu amee chef de l'État dafa war a jóg jàppale vraiment ak njabootam te loolu idée bi rafet na dañuy ñaan yàlla mu àgg ak jàmm euh, ñun nag bi ñu dégloo intervention wax na ni dana dimbale entreprise yi ñun entreprise lañ parce que dañ gérer ay école école privée ku ne xam na ni école état moo war a jàngale mais buñ koy jàppale itam tey jii bu li amee mu dal suñ kaw mu tëj école yi defe naa ni ñun war nañ mën a jóg def suñu kéemtalaay kàttan xam ni lii itam ñun ànd nañ kook moom mais li nga xam ne mi war nañu mën a attraire parce que ñu ngi wax ci dund bi wax ci entreprise yi parce que boobu ba léegi ça deux mois ñu ngi jëm école yi ñu ngi tëj école yi nag am na aussi ay vraiment ay problèmes yoo xam ni ñu ngi koy jànkoonteel parce que école boo xam bi day fay ay enseignants di fay ndox di fay courant di fay loyer di fay caisse de sécurité sociale di fay IPRES di fay IPM yooyu ay charge la yoo xam ni itam tey jii bu nuy wax ñun war nañu ci boole tey jii may responsable CAPEP bi au niveau département moo tax ma bëgg ñun ñi ñu jóg ànd ak école yëpp def benn dànk am na ay participation yu sax yu ñuy def yoo xam ni suñu participation la au niveau national parce que dañ ci war a bokk mais ñu xalaat ni bu état bi jógee di joxe dara war nañ ci mën a jóg parce que affaire bi problème national la école yi nekk fa Mbacké muy franco arabe yi muy école privée yi muy laayeg yi yëpp yi nga xam ni fi dool ñoo fi nekk tey jii ñu ngi def ay demande di laaj nan la ñun kon war nañ def réaction moo tax ñu def benn lettre adressé ko au président la république adressé ko préfet adressé ko gouverneur adressé ko IA bu jurbel ak inspection bu Mbacké pour wan ni leen situation école privée yi problème yi ñu jànkonteel metti na lool parce que ñi nga ñu nekk ak njaboot lan yor te loolu je pense que vraiment li nga xam ne lii mooy subvention bi ñëw war nañ ci vraiment xool bu baax a baax ñu awale ko ci yoon seet ñi nga xam ne nii war na leen ko mën a def ñu identifier leen vraiment teg ko ci li nga xam ne benn commission la boo xam ne bi danañ dem jàppale leen ci pour que ñu mën a ñoom itam bu dund parce que lii bu fekkee continuer na mën naa am ay problèmes yoo xam ni fi toll nii waxuma la élèves yi mais parents d'élèves yi ak ñi nga xam ñooy gravité au niveau de l'éducation dina am problème informé woonu dara parce que amul benn interlocuteur bu mën a wax am nan ay informations yu ñu am à travers la presse ak des information yu jógee ci association yoo xam ni ñoo nekk ci école yi ah yooyu itam bu nu amee je pense que euh, l' inspecteur ou bien le préfet wala ki nga xam ne bii moom lañ jox mbir mi mu am relation boo xam ne bii danañ mën a am di correspondre ak moom mais ba fi ma lay wax nii amuñu benn correspondance à part que. association yu dajaloo euh, di wax ni ñoom daal vraiment war nañ concerté wu di envoyé ay documents pour ñu wax seen masse salariale dépenses yi am yëpp ñaata la loolu mais dafa am ko war a centraliser et je pense que état bi dana ci jóg mais xalaat ni parents d'élèves yi itam am na loo xam ni war nañ ko def ñoom itam mooy tey jii ñun dana am contrat ak parents yi mooy danoo war a jàngale de octobre à juillet kon d'abord am na ñoo xam ni war nañu mën a def loo xam ne lii mooy fay seen vraiment mensualité. te école bi tëjut mën naa am tam danañ ko prolongé te booba foofu la problème bi am parce que tey jii ñi ngi wax naan classe d'examen yi mais école vraiment un an la war a durer te loolu contrat boobu ñun ñu ngi ci kon état bi bu defee loolu parent bi tam war na am xel xalaat ñëw fay élève bi nga xam ne mu ngi doon jàng te ñu ko doon jàng ci anam yu rafet. kon loolu itam vraiment ñoom itam waran xalaat loolu du loo xam ne lii nag par exemple euh, ab euh, lu forcé la mais obligation waaw c'est ça parce que d'abord euh, ñu ngi doon jàngale mbir mi dal na ñëpp mbas mi moom dar na ñëpp kon fi ñu toll nii bu état arrêté ñoom itam war nañ mën a ñëw xam ne ñu itam dafa am ñu doon fayal dafa am ñu doon ay charges yu amoon te charges yooyu ñu ngi koy def ba léegi mais lii nag bu continuer nii vraiment je pense que Euh, parent bi am na responsabilité kon responsabilité boobu mu am nag man xalaat naa ni ñun itam war na mën a jóg di def suñ kàttan mais dana am foo xam ne bu fa àggee itam je crois que duñ ko ban président li mu war a def def na ko mais ñi ci topp ak ñi war a def liggéey bi ndax danañ ko def loolu nag mooy question bi ñu posé fi toll nii parce que xalaat na nii mbir mi bu ñëwee ku nekk naan nan lay demee boo ñëwee sa kër fi toll nii boo ñibbee fi toll nii daanaka. sa kër day fees dell di laaj ay information information bi jàllut information bi xamuñ nu mu demee parce que d'abord danoo war a wax teg ay commission neenañ ci quartier yi commission yooyu gisaguñ ko nee nañ li nga xam ne moo doon war a joxe ñëw na mais ñi ko war a jot dëgg dëgg dëgg dëgg man ci ñooñu laa tiital pour que ñu bañ ko jot parce que d'abord ñi ko yeyoo dëgg ñooñu defe naa ni xamuñu préfecture xamuñu police xamuñu administration doo leen gis sax ci dëkk bi buñ ko seetaanee fi toll nii dana indi coow loo xam ne lii defe naa ni la ci président bëgg du demee noonu parce que d' abord ne leen quatre cent mille yi pour ñi nga xam ne bourse familiale yi ak ñooñu mais complément six cent mille yooyu dafay ñoo xam ni dañ ko war a joxe joxe boobu nañ xamul nan la nag soit délégué de quartier wala président euh, bi nga xam ne bii moo yor affaire sociale wala préfet wala gouverneur wala armée bi wala gendarmerie xamuñ ci loolu dara te loolu information bi war na jàll te mbir mi nag dañuy ba may bañ mu indi beneen feebar boo xam ne bii feebar boobu mooy xuloo bi ak ŋaayoo bi te loolu danay ñaaw comme mbir la boo xam ne bii dañ ko war a jox ndimbal bi am nañ ñu ko yeyoo ñooñu ko yeyoo nag lañ ko war a jox man xalaat naa ni vraiment ñi nga xam ne ñoo yor mbir mi ci département bi war nañu mën a dajaloo seet koñ bu nekk ñan ñoo fay représentant yi ñan mooy kilifa yi ñu impré ñu def un recensement képp koo xam ni kii waroo ko jot vraiment ñu xam ni yow mi da ngaa war a dimbale te ku nekk da ngaa war a taxaw sab koñ dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo fa nekk bu fekkee mën nga ko parce que tey jii mbir mi daanaka waxatuñ affaire feebar bi affaire ndimbal bi la ñuy wax kon ragal naa ni daal fi mu toll ñu dañuy alerter rek pour que ñu teg ko ci yoon teg ko ci li nga xam ne fi mu toll nii moom lañ décidé pour que ñi nga xam ne ñoo gën a faible ñoo xam ne ñoo ko yeyoo ñu jox leen ko te loolu defe naa dañ ci teg suñu tànk vraiment bañuñ ci dara itam. parce que bala ngay def bala nga ni naam nekk fa bala may jox kenn damay jox suma waa kër ba pare jox suma koñ jox suma àndandoo yi doog a tasaare ko ñi nga xam ne ñii ñoo ko yeyoo parce que mbir mi dafa am ñu am doole amul ñu amul doole. ka nga dendal d'abord moo gën a wóor ki nga dëkkal bu fekkee amul kaaraange gi war. defe naa ni yow boo amee itam amoo kaaraange kon d'abord da ngay defal ñi nga xam ñoo la wër ba pare sa njaboot sa koñ sa waa dëkk ñooñu ngay joxe ba pare parce que dafa xam naa ñi nga xam ni ñoo ko yeyoo te ñoo ñu leen aarut yow aaroo sa bopp kon defe naa ni fi mu toll nii euh, di wër nag di photo ak di wër fu nekk di dakk ay oto ñu takki rajo wax di yàlla jaro kuy dimbale nit la ca gën a rafet mooy nga xool nit mu xool la nga xam ne kii da nga ko war a dimbale bala mu lay wax dimbale ma danga ko war a dimbale loolu moo gën a rafet moo gën a neex te defe naa ne loolu mooy lu rafet jullit noonu la war a def ndimbal boo xam ne bii day ànd ak loo xam ne lii vraiment ku nekk da koy yëg ku nekk da nga koy xam ñu koy photo yooyu def naa rafetul. di sant yàlla di sant euh, sunu sëriñ sëriñ Fallou Mbacké parce que mbir mi bi mu njëkkee ñëw xam nga tuubaa la ñëw tuubaa ñëpp di wax Touba wala yàlla def na fi yàlla def ci jàmm ñu amoon ci ab élève yàlla dimbali ñu far yàlla booba bi muy ñëw far yàlla def ñu tëj école yi loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax waaw wàllu fukkeen te loolu bu amoon fi toll nii dina gën a ñaaw mais yàlla def na ni fi toll nii man après laa ko doog a yëg ñu xam ni fi toll nii kooko ci école bi la nekkoon ñuy sant yàlla di sant infirmiers yi ak docteurs yi ak ñi ci jàpp ñëpp parce que loolu dafay loo xam ne di euh, metti woon na lool parents yi d'ailleurs xam naa ni bu amee ba toog dana dem seeti leen massa leen parce que tey jii vraiment Fallou Gallas ni mu toll wax dëgg yàlla noonu la parce que tey jii bu amee mbir mu am Touba école Fallou Gallas am ci vraiment loolu itam vraiment dañ koy sant yàlla parce que terminé na ci jàmm kooko wér na wax dëgg yàlla euh, élèves yëpp mucc na loolu dañ ci sant yàlla di sant ñëpp nag parce que fi ñu toll lii mënoon na demee neneen wante sant nañ yàlla sant nañ ki nga xam ne kii mooy sunu sëriñ bam ci ñaanee ba ni mbas mi bu kastu rajo bi danay dem wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla. dañ gën a fagaru di ñaan di fagaru ñaar yooyu dañuy ànd ñaan ak fagaru parce que daje bi bari na trop parce que ñu bari itam dañ koo deful seen xel parce que boo gisee daje bi ñuy def ci mbedd yi ci grand place yi vraiment day loo xam ne lii vraiment nit ñi waroon xam ni mbir mi am na bu mu amee nag nañ ñaan yàlla li nga xam ni moom la docteur yi di wax état bi wax ko. nañ ci ànd ànd ak moom di def li nga xam ni moom lañuy ñuy mooy di sa euh, di vraiment di raxasu ak détergent yi ak yi nga xam ni moom la ñuy jox saabu yi di bàyyi contact bi di bañ a jaxasoo bi au moins boo nekkee ci mbooloo au moins ngeen am différence un mètre loolu lañ wax ak di bàyyi dox bi nan toog benn place nan toog ci kër gi nan toog ci biir kër gi sàmm xale yi vraiment bu ñu ko defee lii dana fi jóge ñu delluwaat fan nekkoon te loolu defe naa ni loolu rek moo ñu ci mën a génne di sant yàlla di sant sunu sëriñ di sant Sénégal gi yëpp di sant ñëpp ak yéen nga xam ñu waay presse bi li ngeen di def lépp rafet na gis nañ ko parce que communication moom moo fi des léegi comme nit ñi génn ñu dañoo confiné vraiment nan toog di leen déglu te li ngeen ñuy wax ñu koy def.